Ya Allah Ya Allah Lo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee shahr Ramadan Ramadan غدا يا حبيب يا booy waxee da ngay kii da ngay koor kenn ku day téye sa bopp nag day wax rek bu ma laal ma koor gi métti na loolu feeb nugum ay koorug tey kooru ren gii bu dajeeg yeneen koor yi dana rus dana rus lool tàng na tarap heureusement bi mu doonul groupe whatsapp rek koor gi bu doon groupe whatsapp ba léegi quitté naa quitté man kay bu doon whatsapp quitté naa de sama yi sama neri yi la attanatu loolu mu doon kii bi def lamp rek leel la la moom la muy def bi moom loolu <laughs> kii ay rees dama dem man kër gi yàlla xam na ne génn ko rek laa bëgg lan la da ngay jàll doo jaar ne da gisul yoon bi da ngaa gisul yoon bi. dëkk ko sabere nga ko bi bari na lool waay lam. dëkk ko dafa métti lii. eh damay jàll. ñun kay xam nañ ko waaye yoon wi daane ne. waxuma la loolu. xam nañ ma jàlloo dama ne nga jaar ne le. bu nu fonta waaye yooyu day woor ba pare nga bëgg koo ray ak wax ñu tëlu nooy wax ah. dëkk ak yow dong ramadaan la dëkk ak yow képp. Ah. saa koor ramadaan la. xam nga li ma gën a naqari ci àdduna mooy dëkk ak dof. ah ah. wallaay si. man ah, ma may ma ma <laughs> dof man ta weesu nit sa morom a jàll nga dof baare ko. mi pire ma ne ne nga bëgg a jaar dof pire la. may ma jàll dimbali ma. waaye bu yow làmp teg nga sara ngir yàlla danoo woor woor nga yow man ay ah. ah, lii loolu. ah non daal waay. ba may ne la woor naa bi ma. yow wari. waaye may ma jàll. waaw wuy ma. Sade maa ngi kii may ko may ko même mu jëlee. non bu ma ko bàyyee ëllëg dañuy fekk ñu toog ba fekk mais ma jëlee waaw jaaral na de. daf pire ngi nii nag. yaram bii mel ne kuñ ko sédd ci ci ndawal. nee na. dox bu yaakaar nit nga nag daa metti. waaw lii métti nag. kon ku yebu daal. ñii nag moom ku dëkk ak ñoom. waaw nga jaamu ci yàlla rek.

ñeenti weer te li may laaj weer wu ne da koy wooru weeram wala. dee kii nag ak ak. yow nag Kaaba yow dof bu saytaane nga ndax dof buy dugg ci diine di taakale ay mag nga yow. waaw waaw dof bu saytaane nga. kii waxal ak moom ku jara waxal nga. weer moom weer moom woor benn weer képp la. événement yëpp nangu naa mu doon fukk ak ñaar ak lu ne waaye nag woor moom benn rek la nga naan gis naa fi ñeenti weer ñaar ñeenti weer fu ma mais ngeen jàpp koor gi yëpp ñaari dafa am ci koor gi muy ñaar yéen ñaar xam nga loolu wax nga dëgg d' accord na d' accord na d' accord na nag yow. aywa kër gi am na réeróo waay kër gi am na réeróo gu métti. réeróo gu métti ah def. réeróo am na fi. moom kay maa ngi may liñ niróo lay mbëb ba tax mu teg ñuy def. niróo nam lool waaye moom it am naa ne dof bu naqaree fan lay doon fii. waaw ndax dof bu jàpp ni da ngaa wér. waaw waaw moom dof bu yàgg da ngaa ne au top. moom du naan garab au niveau du naan garab. yow sa garab bi kañ nga gëj a naan lamp dañ waxtaan rek ah sa garab yi kañ nga ko gëj a bi ma jëlee ñeenti ndox yu bokk yaa ngi dégg. koy <laughs> jëlee ndox yi. ñeenti nit ñu bokk ñoo ma ko jox. ñeenti ndox yu bokk. ñeenti nit ko ko ko rek. Mhm. waaw nangu naa loolu léegi jël naan nga doon. ko. ay doom nuñ koy naane <laughs> ah daf man man xam nga li ma gën a naqari mooy waxu ko dof waxu ko dof moo naqari. wallahi ah dugal juga kalau bala ñoo dog daloon na ci koor dégg buñ buñ buñ dogee boo gisee ñuy naan dog allahuma laka sumtu foo ko ah ci ba nga yow eh bal di ñoo la ko dàq nak ah mo dagal ko ragal dagal ko ragal bul xéru wax nak dama ko mën de waxuma yow mbaa mi ñu wër muus mi eh, ma garda wi déet muus mi ñu. xanaa waaw muusum kër sëñ Mbaye Ndiaye jàkka sëñ Mbaye Ndiaye jàkka sëñ Mbaye Ndiaye téye nañ fa am muus garda wi fan yëpp est-ce du yow. bay nag bay yow da ngaa man jikkoy muus trop yow nuru nga ma muus de.